waaw euh, bon man sax mënoon naa présenté ci yeneen casquette. Mhm. Euh, man je suis du mouvement des forces d' avenir de war naa bokk si ndaje bi mais mu ma fekk Abidjan. fekk dama demoon Abidjan ci benn forum bu ñu doon def avec la fondation Amadou Gon Coulibaly. Mhm. tombé ak incident yi naa diplomatie yi ci amoon. à travers ministre de la jeunesse Mamadou Touré ko su sali de passage. moo tax fekk wu ndaje boobu. en même temps maay bokk aussi si sous coalition républicaine Sàmm Suñu Réew dirigée par le président Modou Fall. ak la non parce que Benno moo organisé noonu xam ñu bëri duñ ko xam. d'accord Benno dafa am ay les parti les mouvements ay les sous coalitions lu mat ay deux cent la léegi li ma bëgg jublu ci loolu. Mm. mooy ñooñu ñëpp mën nañu wax ni la majorité jox nañu président carte blanche pour mu choisir ki nga xam ne moom mooy continuer jiite les destinées de Benno non le candidat mais pas en tant que politique pas euh, aussi le APR. ki président di di choisir uniquement le candidat lay doon ñun jàpp nañ ne ñu nekk ci biir xam nañ les alliés amul problème euh, euh, alliés yi ñëpp en majorité jox nañ président kàddu ba pare li ci des mooy euh, biir APR la président lañ jàpp ne si la war a tànn ki nga xamante ne moom mooy nekk le ci loolu man jàpp naa ne président fi réew mi toll ak acte bu mu def comme ni ma waxee sànq maa ngi jógee Abidjan gis naa parce que demoon nañ ba sous région bi ñi bëri xam nga fu ñu teg Sénégal ak coow li bëri mais tey la ñëpp gën a naw Sénégal ñëpp gën a naw à travers le président Macky kon loolu président Macky je pense dina choisir koo xamante ne comme nu mu ko waxee dina nekk un rassembleur dina nekk un homme d'état dina am koo xam ne jeunesse bi am nañ ci moom confiance am na nag ay kàddu yuy génne de gauche à droite mais li may wax jeunes yu bëri rek dama ne nañu nañu éviter kenn ku ne naan diw mooy sama leader diw laay choisir diw laay def parce que yooyu mën na indi ay ay xaaj seen si ñun mais ñun xam nañu ne su coalition bi àndee machine nu bennoo mi bu ñu amee benn candidat wax dëgg yàlla le cas face ak li ñu def ci réew mi Sénégalais dinañu opter pour la continuité. lu tax euh, excuse-moi lu tax nga jàpp ni biir biir APR le président war a choisir le candidat de Benno sachant que Benno Bokk Yaakaar coalition la bu nga xamante ni euh, du APR kese moo fa nekk. waaw moom laa la du APR kese mais xam nga nee naa la euh, biir Benno bon candidat yu bëri xam nga candidat présidentiel dañ koy préparer. tey à part le président Idriss Seck bi génn ñëpp xamoon nañu moom il préparait sa mais ñi fa des ñëpp. ñun ñëpp on se préparait pour que ça soit le président Macky Sall tey nekkul le président Macky Sall mais ci ay waam la ñuy wëyee man boo duma ma joxe ay tur mais mën naa joxe ay misaal euh, si ñi ŋànk wala sa waxatuma sa bennoo mais ci biir Sénégal képp kuy observateur ak ñi nga xam de gauche à li ñëpp di wax te jàpp nañu du génne foofu am nañu profil de deux à trois candidats. yoo xam ne nit ñi jàpp nañ ne si ñoom la. ñan moom la no mën naa ba du ma joxe parce que comme tey bon bu doon temps may gën a nekk jeune mais tey en tant que responsable am na yow du ma ci dugg du ma joxe tour mais mën naa joxe ay misaal am na ku ma jàpp ne àddina euh, bi ñëpp muy pouvoir comme opposition ñëpp jàpp nañ ne c'est le candidat de la région mooy ki nga xamante ne suñ ko choisir

am koo xamante nag jàpp nañ ne moom li ñuy tuddee le candidat de la confiance parce que li mu tax man limee ko noonu man loolu nag man la engagé man Victor. man jàpp naa ne am na trois choix yi nga jëm ma jàpp ne man Victor du génn ci kanamu président léegi moo koy approprié. mooy candidat la raison ak le candidat du cœur ak le ci loolu man naa joxe ay propositions euh, pour pour man dans le sens du président parce que foog ñu dimbale ko ci comme ñi naan. le candidat de la région kooku jàpp nañu économie côté yëpp moo ñu gën a war a arrangé mais am nañu jàpp comme politique dafa garaaw ñu naan non mën nañ ko jox tey pouvoir bi suba mu gagné injecté président ci parti bi dugg na fi génne noonu yu mel noonu je pense président man na jël ay mécanisme dans le parti ay genre réforme moderniser euh, changer le statut et du parti pour être secrétaire général du parti il faut cinq ans wala sept ans wala celui qui est président de populaire être secrétaire général du parti yu mel noonu mën na joxe ay garantie côté boobu parce que tamit bu ñu ne le candidat de la confiance ñi ñi am na ñu ñu koy xalaat naan noo mën na permettre au président su demee ñëwaat comme yeneen candidat yi ki koy nangu mais loolu aussi c'est un danger ci sama côté parce que man su ma jàppee ne un candidat la confiance te kooku mën na bañ a gañe suba nekk ci yooyu ba beneen candidat jóge fee jële yooyu fi mën na demee neneen te ma jàpp naa ne enjeu yi mais man ci li ma gëm président de la république du def yi ma la analyse yooyu yëpp nit ñi ñoo ko wax de gauche à mais li ma jàpp président de la république ak nu mu bëggee réew mi ak les enjeux sécuritaires mhm. ak effort yu mu def il